waaw euh, maa ngi nuyu gars yi dama am lu ma bëgg a conseiller Ousmane Sonko parce que dafa am euh, trois étapes yoo xam ne taxaw na ci kanamam te leer na leer na ko leer na Sénégalais yi ba pare juge seen bopp avocat yi dégg nañ li Adji Sarr wax dégg nañ li Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko man je conseil une chose. gis nga dossier bi comme juge bi nee na la woon bul ci wax ce n'est pas la ngay génn di wut looy tontu wala looy wax wala leneen loo xamante ni tey jii moo ci topp wala lee wala leneen parce que génn di setal sa der amatoo ci cër génn naan damay setal sama der wala damay tontuwaate du cër léegi amatoo ci cër ci loolu yow convoqué woon nañ la ngay pare pour dem am na ay antécédents yu ci am génn nga taxaw ni dossier bi taxewoo ci laaloo ci loolu yëpp. amoon na ay interprétation yi mu jur mais soo xoolee li ëmb li yëpp tey ñu teg aji Sarr exposé ko devant tout le Sénégal pour mu wax jàppal ni am na lu nekk ci lii am na sondage boo xam ne xëy na bëgg nañ ko retrouver ci sa biir communication boo ñëwaatee am na benn visage bu ñuy xaar ci yow am na geste yu ñuy xaar ci yow te loolu mën na andi leneen luy gën a compliquer situation bi parce que di li muy li li muy jur mooy après yow euh, euh, sa sa apport affectif bi nga am ci kanamu sénégalais yi dootul jàll ça ne va plus passer benn bi mooy euh, deuxièmement Ousmane Sonko man de su fekkoon ne man maay taxaw di sa avocat position bi lay taxawee li aji Sarr di wax di aggravé yëpp moo ngi nii aggravé na si kanamu ñëpp parce que soo xoolee ñu ne viol amul moom mun a tegaw ko ay fetel moom aussi ni muy nangoo di tëdd ak yow chaque fois wala mu bañ ko nangu te loolu di am plusieurs fois te moom mu am ñu muy waxal te ñi muy waxal ñëpp si teewul kenn koo xam ne am na lu mu ci jot a lu war a mën a tax wax ji du yegg si fii moom xeexut ko ci boppam loolu mooy dañuy jéem teg lu ñaaw ci sa der léegi li koy setal mooy nga noppi parce que man loolu laa njëkk a keroog bi ngay dem ñu naan la dañ lay jàpp dama leen noppil cette fois-ci bul def vidéo bul conférence de presse doxal si yi ngay dox bul waxati ci dossier Adji sar dara parce que man dama gis ne dossier bii bu ñu demee ba xool ne par exemple dañ ko war a classé mën na am beneen beneen stratégie politique bu yàq sa der mooy li ñu teg nii tey Adji Sarr di wax Sénégal di ko dégg te juge bi gannaaw moom ci boppam taxawoon na bul ci wax léegi yow juge bi jox na la instruction boobu ñoom je pense que ne juge bi tamit instruction boobu la leen jox ñoom ñu génnee wax yow amaan nga benn dëgg mooy par exemple juge bi respecté nga ay ay ay critères am Ousmane Sonko noppil bul dem fenn bul wax nekkal ci li nga war a nekk jàpp sa ñaambur parce que stratégie politique bi teg fii sa kanam ci sa avenir politique lenn la. lii ñu teg sa der nga taxaw ci kanamu ñëpp tamit nekk koo xamante ne nii xas sañ la bëgg te bu fekkee ne nit ñi dañ la bëgg te bëgg nañ na loo xamante dëgg la même su fekkoon ne da ngaa tëdd ak xale bi nga taxaw ne sax man weddiwuma tëdd na ak xale bi loolu wàññiwul sa diggante ak ak nit ñi loolu tamit nekk na loo xam ni du loo xam ne mooy yàq sa yëf munu ko parce que tey bu fekkente ne taxaw ngeen ci kanamu juge bi nga leeral ne yow violé woo ko nga leeral ne yow aussi tëdd nga ak xale bi xoolal. juge bi mënula la cay tëj mënu la cay tëj te du la ci tëj te loolu dina la andilaatal beneen lance beneen relance ci sa politique moi te conseille de ne plus parle dans cette situation parce que ku wax ñu xam foo féete alors éviter loolu éviter loolu te loolu bul ko def bul wax bul génn ay conférence de presse tontu tontu yooyu day dem ba benn instant sax yow da ngay ridicule devant les gens c'est un conseil te donne Moi, moo numéro est là sur Internet. Si tu besoin de moi, appelle au téléphone. On se voit, on s'appelle, on va partager et je conseil te conseiller encore de plus pour ce qui va se passer dans ton avenir nga xool noo koy gérer étape bi nga xas ko tëb xool leneen loo def loolu laa lay conseil abon bon entendeur salut man nag je te lance un message ouvert pour que maa ngi ñu toog ma wax la li nga xamante ne mooy sama xalaat point jaajëf